na nga def leen rek bu wér. delloo ziar. ndeysaan. waaw kay ñu ngi lay sant di la gërëm. jërëjëf soxna si. sañ say rafet na. macha allah jërëjëf kon tuddee naa la ko. <laughs> ndeysaan waaw boo ma ko tuddee man nangu ndax sa jëkkër sama nijaay la. ndeysaan kon yow sama jarbaat nga. waaw famille Bale Ndaw Mourad Ndaw Alassane. ah Mourad ak Maxoon na. waaw lañ lañ si Mor Alassane. nañ si Alassane Mor Alassane ak Maxoon na Alassane. gis nga. <laughs> foofu laay yam bisimilah bisimilah ndaw bisimilah. <laughs> maa ngi nuyu sama papa bu baax ndax sama xaritu yaay benn bakkan la. ndeysaan xam naa su ma ko waxee Sacré Cœur dana xam. ndeysaan ndeysaan mhm. ndeysaan. ok léegi nag ma ñëwoon ci thème bi parce que man daf ma dal. Mhm. man personnellement daf ma dal. yow da nga ko dund. daf ma dal man sama bopp di wax yow la dal. ci 2007 ba ma accouché. Mhm. ba pare. boobu ba may accouché dara daluma parce que maa ngi accouché à l'âge de 25 ans. léegi nag accouchement bi dama ci sonn. parce que xale bi dafa taayoon 4 kilos 200. dëgg la léegi bi mu génnee ba pare. placenta bi des ci biir. Mhm. ñoom ñu dem di toppatoo xale bi pour mu noyyi. ma commencé fatt ma ne ko damay nelaw mu ñëw mbéj ma après ma dégg seen mootu ñuy wax ma laaj ko faalew ma mu dugal loxoom bu sol gant mu laaj nañ nañ ko jox gant stérilisé. Mhm. nañ doole piqûre xaw ma lan ci kii bi sérum xaw ma lan maa ngi koy dégg mu yooyu jàppoon naa ko. Mhm. ma wax ko sama grande sœur mu dugal loxoom sama biir kanam xëcc placenta bi ma ne ko yaa ngi may gaañ ci kaw. mu may yoox naan tey laay de mun ma bu fi wax dee mu xëcc ko affaire bi toj. mu laajte ariko ñu sotti ci sang bi di ci racc di ci racc sang bi di ci génn yépp jël ay produits def ci biir di raxas raxas raxas raxas léegi mu defee noonu dafa ma xar léegi ci kanam ba ci anus bi amul dara. Hmm? fekk amoon naa début hémorroïde mu jël hémorroïde bi ñaw ko ak épisio bi mu fant fant bi mooy dagg bi ñuy dagg mu ñaw ko. léegi xar mu bàyyi ko noonu. ma toog fa trois jours ñibbi sama kër. loolu fan la fii ci Dakar. sami municipal Liberté 6. demal yeggalil. voilà. Hmm. parce que maa ngi kii dama noonu porté plainte sama ma ndogal yàlla la bàyyil. dëgg la. ñu continuer noonu ma bàyyi ma dem ba suñu kër bañ ne gannaaw suba la ngéntelee. Hmm. ma ñëw ma ne ko yaay man daal sama kanam gi dafa am lu ciy xeeñ xaw ma la. <laughs> ah xam nga waxatuñu waxu kaw ga. dama la bëgg wax xam nga lu tax lii nii thème bi am solo ku ko def loolu. Dakar lañ ko ko defee. docteur waaw. ça veut xam nga ñi koy duñ ko waxtaanee. waaye lii ngi rëmbee lëmbee réew mi. xam nga kii ci Dakar. xam nga dëkk fii ci Dakar fii ci Dakar lañ ko ko defee waxaguma la nag ka nga xamante ne ne que quoi ba ma ca amoon Ziguinchor la jóg ak keneen koo xamante ne ne que ci Jurbel gi dama la bëgg a wax gis nga Alaaji jàngoro bii il faut ñu taxaw ci. am na nag naam wax ñu waxtaan yu bëri yoo xamante ne ne seq nañ ko ci am na ñu bëri ñoo xamante ne def nañ ci ay débat ki débat dañu bëgg lii kenn dootu ko waxati. kenn dootul amati waaye mu ngi am ba léegi te li am ba léegi suñu toogee ne journée mondiale de la femme pour man dañu naroon jël journée mondiale de la femme jagleel ko li nga xam ne moo di mbiru fistule obstétricale yi ndax xam nga allah ji loo xam ne day di diñu ci jigéen allah ji jigéen su demee ba nga xamante ne ni fu mu toog dootul te nag dañuy beru du ñu nekk ci nit ñi fu ñu toog du ñu nekk à l'aise suñuy wax ak yow dañuy dand fale defe ne ñu ngi xeeñ allah ji